صباحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر ma bëgg ñëpp ci ñun kon ku ne jàppe sa bopp ab defarkat ngir jëmmi sëñ bi sëñ bi rek ndax moom rek lañ koy defal bu ko defee liggéey ba dana gën a sell bu kenn ku ci nekk poñee sa bopp teg ko ci yoon lépp dana jag loolu mooy faral di nettali ni ki ñëwoon ci sëñ Moussa te ko noox naa dama laa yërëm ci yan bi nun ñëpp xam nañ li yanu des na sëñ Modou ko ndax lan mu ni ko door dem sëñ bi ak ni jamono ji demee melokaan yi at yu néew yi sëñ Moussa ni ko loo may dimbalee ci yan bi loo ma ciy dimbalee waa ji ni tekk di ko xool sëñ Modou ko téyel ma sa bopp dénk naa la sa bopp bu ko ku nekk defee yan bi dana woyof nun ñëpp kenn ku ci nekk bu téyee boppam rek keneen li ñu fiy tere man duma ko def li yàq liggéey bi du su bàyyi ko ci man liggéey bi dana jag te du aji contrôle daje yii dañoo mënta woo mbooloo mépp wax ak ñoom kenn ku ci nekk ñu sëgg ci am noppam wax ak ñoom waaye bu ñu ko mënoon kenn ku ne dañ lay woo sëgg ci sam nopp wax ak yow fàttali la waaye dañoo jàpp ni yéen a nu wuutu ci nit ñi moo tax ñu wuutu leen woo leen yéen ñii jëwri ñi wax leen li ñu bëgg a def wax leen tam engagement bi ñu yor fi mu toll ti nun ñu ñii yëpp nu bàyyi ko xel ci buñ demee soññaat njaboot gi gën leen a dànk gën leen a yar ab liggéey la boo xamante ne ni liggéey bu sew a ndax yàlla lañ koy defal te yàlla dana atte dana fay loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax suñu borom dana atte te dana fay kenn fayut yàlla rek mooy fay te dana atte dana fay te kenn ku ci nekk li nga jëf dong la la yàlla di fay yàlla nag mënee su koo nax loo dof-dof yàlla du la nax wooy loo yow yow itam mënoo koo nax nag boo defee nag kenn ku ci nekk yaa way xam pas-pas bi la indi ak it yitte ji ngay liggéey waaye liggéey bi moom yitte dong moo ci jariñ nit yitte ju kawe képp sëñ bi itam ci loolu dong la doon woote rabbi asaabaka bil himma mooy yitte ju kawe rek la doon woote kon yu suufee yëpp nun noo ko war a bañal suñu bopp dindi ko fi te liggéey bi itam moomunu ko yoonu lislaam yëpp lañ ko téyel koy taseel ci mbedd mi na droit leen seen comité bi li ci def nangam ak nangam bu boobaa bu ca gis sa bopp jàpp ni ki da la bëgg a dimbali mooy yaa ngi def dérapage léegi del si waatal toujours ki lay critiquer jàpp ni mooy ki lay dimbali noonu nag ki lay critiquer la ñu gën a noonu moom la ñuy wan gannaaw te mooy ki ñuy dimbali ki la naan nangam baaxut mooy tax nga defarwaat waat la naan nangam ak nangam boo ko defee ni kooku nga war a déglu waaye ki nga xam ne toujours da lay wax ne lépp jag na dalay nax lépp jagut lépp jagut am na lu jagut loolu yi jagut moom lañu war a góorgóorlu pour mën koo dindi loolu rek tax ñuy woote daje bu ko defee itam ñu sagal nag sëriñ bi yëkkati na kàddoom li ci des ñun rek la des dara desul ci moom matuwaay yi mu war a jël yëpp ma jël na ko te it mat na li mu doon taxawaay bi mu war a taxaw taxaw na ko lu des ci ñun la ku ko yab ci ñun la jaare ku ko yab rek ci ñun la jaare loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax te Sëñ waa daf ni daf daan wax ni képp koo xam ne dees na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet si su yemee ci yow du ma ko jaral ak si ndax saw melokaan ne eh, doo jéggi siraat mukk te looyowuñ ko maag yow léegi kenn ku ci ne nag yaa way tëdd xoolaat sa digg ak sëñ Tuubaa nag ba xam sëñ Tuubaa mii nga wax ni mooy sa yaakaar àddina ak àllaaxira nga xam ne bu cëgg demee ba desatut ci dara ci léegi yow moom moom nga yaakaar ma xool sama digg moom nag ba xam ndax est-ce que sëñ bi jaral na ma ak it ndax est que sëñ bi ma ne ci barab jaral na ko moom mu déplacé ñëw fekk si ma ndax koo gis dañu ko gisul ci yaw la waaye du ci moom mooy danga nga koo jaralut boo ko gisul rek mooy jaraloo ko léegi loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax yooyu la bëggoon rek ñu xel ci jataay yii ñii ñu ko seqal itam ñooy ñu suñ jëwriñ ci biir liggéey bi nit des na ko jàpp ndax mbokkam mbokki sëriñ bi lañ kon am na waneen cër boo xamante ni war nañ leen koo jox ndax suñ borom a ko dogal ñu seq ak ñoom liggéey bi itam ñu féete ci wet giñ ci féete cër boobu itam nañ ko bàyyi walla xel bu baax a baax ñu féete it ci wet goo xamante ne nii mënuluñ ko suñu bopp ndax ñun ameel nañ leen cant muy assuré na muharram taxawaay ñu ciy taxaw ndax nangul nañ loo xam ne nanguluñ ko kenn may nañ nu mën a defal Sëñ Tuubaa loo xamante nii bu buñ nu ko may loon doon ko man te nun jàpp na ni loola moom lu ko gën a kawe ci ñun amul suñ ko ñàkkoon mën nanoo bàyyi lépp te dimbali nañ nu ban am ko loola itam ameel nañ leen ci ak cant te ñoo ngi leen ciy sant tey ñaan suñu borom defal leen ci tawfeex jo gën a kawe la ngeen yaakaar yal na dëppoo ak ngërëmal sëñ bi ñu leen ciy sant bu baax a baax waaye daal bëggoon naa ñu gën a bàyyante xel ci suñu biir ñun ci suñ biir yi ñu gën a joxante orma nit ñi poos yi suñu boroom lañ te poos buñ ne borom a xam lam ci denc kenn ku ne xam nga sa bopp waaye sa borom ump na la na nañuy moytonte bu baax a baax te gën a sàmmante orma ji te gën a bàyyante xel te gën a suudewu ngir ànd te raxas suñuy xel te kenn ku ci jàpp ni fu sa morom nekkul yaa ko fa nekkal saa yu problème amee nañ ko ratifié te jàll te xam ni problème boobu du du kam dal kooka suñ borom a ko daala a natt ko mu jaare ci moom waaye nun ñëpp la suñ kaw ndax bu yàqoo nun ñëpp la ñuy tudd loolu itam nu bàyyi ko xel bu baax a baax lii daal mooy li nga xamante ne nii bëggoon naa ko ci yëkkati ci kàddu yi ko defee bokk yi ngi seqaloon suñu ablaat boo defee asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaare ñëpp di yëkkati kàddu ci turu suñu abdulahat ngir kàddu yu rafet yi nga xam ne sëriñ Ahmadou wax na ko muy kàddu yu soññe yu am solo yoo xam ne jóge na ci xol delluwaat ci xol ndax li ñu tënk te boole ñu day lenn rek muy muy liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi nag boo ko dee liggéeyal te jox ko sa lépp mu tëyal la lépp kon war ngaa sàmmonteeg sa ngor ak sa jom ak sa fayda. ñi nga xam ne ñooy bokk fii di liggéey ci ay at at yi yëpp. wax ci boole gi ñu yàlla boole ngir Eh, jaxasoo bu rafet bi ak ànd bu rafet bi dañ koy wax toujours ci ci fànn yëpp boolewuñ suñ bopp Sëriñ Tuubaa moom la xiir moom la soob mu boole ñu ñuy ñu koy liggéeyal jàpp naa ne tamit li ko gën a waral mooy bokk bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg bi mooy bokk ak bëgg sëriñ bi te di fàtte suñ bopp di jox sunu bopp yàlla di ma ngir jëm yàlla ndax kenn ku nekk xam na ne kenn ku nekk am na lu la occupé lu bëree bëree bëree bëri rawatina ci pereetu màggal nga bàyyi sa kër bàyyi sa temps bàyyi sa gan yëpp dajaloo fii lu man ñetti fan loolu Sëñ Tuubaa dong moo ñu ko jaral ak payug yàlla rek lañ ciy séntu tey it danañ ko ci am incha allah kon cant yeeg ngërëm yeeg yooyu yëpp sëriñ Ahmadou wax euh, ñu nit ñenn lañ rek ci taalibe sëriñ Tuubaa yoo xam ne euh, na suñ maam yee jaaye woon ak njureel jënde ko ak taalibe ngir liggéeyal sëriñ Tuubaa noonu koy defee ndax it fa suñu yéene jàpp ne dañuy dunde barke rek wala dañuy dunde li li sëriñ bi liggéey rek jàpp naa ne bu kenn ku ne defoon defee noonu lii nos bi lii nos bi mën naa yànq sëriñ bi moom mbiram dara du ci sikk waaye nag am na lu ñu nos loo xam ne kenn ku nekk léeg-léeg war ngay fàtte sa bopp li ca nekk te lu mel nii rek mooy mooy li koy waral kon yàlla ñu yàlla gën a euh, dëppale suñuy mbir euh, dëppale it suñuy sunuy jikko ñu ngi sant bu baax ci comportement yi fi am ci biir kër gi am na ci wax dëgg yàlla ay membre yoo xam ne sax da ngay jàpp ne ñi ay malaaka lañ ngir doo leen gis mukk ñu noppalu wala ñu nelaw dañuy jaayante dañuy def lu nekk kon xëy na su ñuy wax léeg-léeg ci yenn kii dafay dafay dafa ñun ay ñun doomu aadama lañ doomu aadama nag kenn ku nekk war ngay dàgg sa bopp di xool faay yi ngay def nga ciy gën a avancé waaye gis nañ ne résultat bii ñuy am wax dëgg yàlla bëriwul commission boo xam ne mi ngi koy am ci biir magal gi moom ñëpp xam nañ moo xam ci cérémonie bi la moo xam ci accueil hébergement bi moo xam ci restauration jàpp naa ne commission organisation bi ni mu nosoo ak ni mu suudewoo ak ni mu tege ci ci ci fànn yoo xam ne dëppoo naag ni ñu war a liggéeyee bëriwul yaakaar naa ci ci biir comité bi euh, wala benn gënu ko def boog loolu tamit ak cant yàlla wax dëgg yàlla ak expérience boo xam ne mbooloo yi nga xam ne ñoo ci nekk am nañ ko kon yàlla ñu yàlla gën a defal euh, ñu gën a doon benn te dëppale suñu xol te sëriñ bi di borom liggéey bi nangul moom rek nañu xool ay bëtam nangul ñu loolu mooy li ci am solo te ñu bañ a gis suñ bopp ci lenn li ñu def rek nañ koy def ngir jëm yàlla te saytaane dàqu ci ngistal dàqu ci ñu sant di baalu àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah di rafetlu itam kàddu yu mat yi nga xam ne moo fi jib léegi e, di soññaat rek sama e, bokki taalibe yi e, dafa am bindkat buy wax ni àdduna li fi baax mooy defal nit njekk nee na nee na àdduna moom loolu rek ko fi neex dafa nit njekk euh, yaakaar naa nag euh, noo ngi dëgmal bis boo xam ni manees na cee defalaate ay njekk yu bari waaye defalaate ko ci ci ci ca fa ko jar dëgg nag waaye defalaate ko ci ndigal itam euh, loolu nag dafay am solo loolu nit bàyyi ko xel am keneen kuy wax ni du obligation ci kiy digle mu doon nit ku mat waaye na digle rek lu jub bu xasee digle lu jub rek moom wàcc na ndax mat moom mbirum yàlla eh, yaakaar naa nag eh, bokki xalaat yi ñu bokk tënk fi yu jub la ni ko sëriñ bi eh, di waxee juttu loxool yow ma bi ruuxi wal badani wa waladi wa walidayya fil alam moom léppam jox joxe na ko joxe nag ruum joxe jëmmam ba joxe waali yaari waajuram kon li mu am lépp joxe na kon day jaaru nu jox ko leen am lépp euh, waaye ni ni ni ni ma koy waxee bu buñ koy jox nu nu defar ko ba mu sell nu defar ko ba mu sell euh, ndax nu bañ koo jox lu muy tànn waaye nu tànn ba nu fi door koo jox ba nga xam ne lu sell lañ koy jox euh, te loolu sew-sew yii Ahmadou di wax mooy yii manqué danañ ko xam nun ñi nga xam ni nooy nooy waa wilaaya koy xam waaye yi nu manqué le waa xidma yi xam nañ ko ndax boobu léegi noo nekk yi nu manqué le kilifa yii xam nañ ko bu ñu ko waxul rek dañoo dañoo dañoo dañoo bari suusu te bëgg rafetal suñu ànd ak noonu te it doonte suñuy kilifa yi suñu suñuy nawleel noonu bu ko defee kon dana am solo lool te nun na xamagun luñ manqué waaw bu fekkee ni yàlla dogal na nu bokk ci ñi nekk ci bopp yi xamagun luñu manqué ndax euh, fi manque gën a yombe ci sunuy loxo la nekk kon li ca manque ñu ngi koy xam tey magi jëmm lañu te li ñu war a xam nañ ko kon nag dafay jar nu gën a vigilant lool te xam ni dañ koo séq ak su naw lay gor te yàlla rek lañ ciy wut te euh, li ci sell rek la yàllay fay ànd ci engouement bi ànd ci ci ci rëg-rëg ji ànd euh, déedéet loolu taxut a fayeeku li ci sell rek la yàllay fay boo defee kon loolu du yóbbaale sensibilisation boobu ci euh, mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi waaj di ñëw euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu